Serigne Touba nag yàlla da ko cee teg nattu moom muy sant ñii ñu teggil leen ko ñuy sant moom ñu teg ko ko muy sant su weeru safar passé rek yaa ngi jublu mawlidu rasul sallallahu taala alayhi wa sallam muy weeru ki gën ci àddina kon daal tabaski tamxarit safar ak gàmmu jeex na lu dikkati nag danga nga cay dugg ca biir weer yooyu rek di ko màggat kon bu sëriñ bi waxee ni safar di weer woowu nag dama bëgg ngeen santale ma ci yàlla ndax dëgg yàlla da ci defal ñeent yu mës a defal kenn mooy ban ban ne suñ borom dafa yee ci benn saa nit ak jinni ak malaaka lu dund ak lu faatu ana jamil muslimin wal muslimat la yaay min um wala mu waat bayna al insi wal jinni wal malaikatu xat radoo ani ridan Serigne Touba nee na ruugu yàlla bind yee na la ci seen saa diggante nit ak jinni ak malaaka lu dund ak lu faatu ni santal leen ma Serigne Touba muy benn bi ci des mooy Euh, lii nga xamante ni moom lañ ñi ma yóbbu woon ci géej gi di bëgg a yàq sama yëf tey jii bu màggal gi jotee dañuy ñëw di ma santale yàlla ndax lu tax bu ñuy maaj muy julli bu ñuy liit muy nodd bu ñuy rappel muy liqaam ca Mayomba 46 soldats ñoo ñëwoon tasaare jàkka ja tey diggante ñaari jumaa yi 46 kilomètres la màggal gi bu jotee kilomètre bu ne soldaar dafay taxaw naan bu mu fi yàqoo kon nag nee na loolu jar na ma woote sant yàlla bi ci desit ñi aju ci man ñoo gën ñi ajuwul ci man ba yómatu xooli mu jënnati kon loolu bu ma ko sang boroom defalee jar na ma ñëw sant yàlla kon loolu moo tax sëriñ bi wax ni dama bëgg nag ngeen ñëw santale ma yàlla sababu xaybati ya anna allaha arada anaala min ujaaha wa an akoona shafian li qawmi wa an akoona xaadiman fi dawmi ma di la seereel nag ni la cant googu nga xamante ni moom la sëñ Tuubaa sant yàlla ci bisam boobu la tey da boo demoon Irak yàlla dogal na dem na Bagdad waaye bu la fa guddi Ashura fekkoon ñun ni dañuy fàttaliku Ousseynou ñooñu seen i deret la ñuy xotti deret ji naan gas gas gas ñuy fàttaliku Ousseynou xoolaan nag tey ni murit yi gëme sëriñ bi nga xamante ni sëriñ bi juróom yi ñun la moom lañ ko def bëgg wóolu doyloo yaakaar ak gëm sëñ Bàmba lañ ko def ñun taalibe murit yi bu ñu woon fekke leen ma Touba bu ngeen ñëwee ñëpp faatu ñun moo nu gënal ndax sëñ Touba rek la ñu yaakaar addina ak alaxira kon ko demee takk nañ ko ci garab fetal ko néewul dikk leen sànni nañ ko ci géej gi néewul ñëw leen ba wax nañ ko ci puur néewul ñëw leen juróomi ati maa yomba tegul cin tegaluñ ko cin tibbul tëddul néewul ñëw leen kañ lan ñi ñëw leen mooy bi nga xamante ni nag daa bëgg nag ku ne ñëw santale ko yàlla kon sëñ Touba c'est le marabout de la paix c'est le marabout de la kon nag kookee nga xamante ni ñu ko yóbbuwoon ci géej gi kat ñoo mujj nag bind lii ma lay wax ñoo ni qu'il devait se comme le prix pacifique des prédicateurs de guerre sainte, le plus grand facteur de l'expansion économique, le plus solide soutien de l'ordre public, mais le plus zélé apporteur de la fraternité, non seulement entre adeptes des même culte, mais entre croyants de confessions différentes. Bamba, merci. Encore une nga France en 1914 400 tirailleurs mourus.

jëm ci noonu jekku sey noonu jéggal say noonu kooku sëñ Tuubaa rek ko mas a def xëxër naa bil ahdaayi turan euh, salimtu minal ahdaayi turan waaye afawtu nag anil ahdaayi turan kon Serigne Touba kenn mënu koo fay kon maa ngi ñaan nag sama mbokki taalibe ñu gën a redoubler de vigilance bàyyi xel bisu bii di màggal gi bis la boo xamante ni mag ñi dañ daan dox di dem Touba mag ñi am caxat lañ daan jël di ko defi dal fop am caxat di ko def mbaxana tey ji ku nekk boo jógee tey bu la neexee bu fajar gi bu yor yoor bi jotee nga julli ji ko Touba ganaar ba gëléem dama ne na lépp dee nan góor góorlu xam ni sëriñ bi mooy sunu tey mooy sunu ëllëg maa ngi ciy sant nag kii nga xamante tey moo nekk ci boppul islam muy kan muy Cheikh Mouhamadou Mountakha ibnu Cheikh Ahmadoul Bachir am naa sama bokki taalibe murit yoo xamante ni awani bii dañ ko tudde awani Cheikhul Khadim gis nga tey ci safar dañ koy bale ba mu set wecc tonni ko peinture euh, euh, trottoir yi wan ne ni ñu ngi ci safar euh, wane ni awani bii ginnaaw sax sëñ Tuubaa waree su ko tudde mbedd ndax koo tuddal mbedd koo tudde mbedd wutal nga ko morom hmm. te moom amul morom ndax doo dem Arabie Saoudite taalibe yi gis nga dañuy tàmbalee Castor di bale ba kër sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma lakk lépp dimanche incha allah kon nag ma bëgg nag bokki taalibe yi ñun ñëpp ñu waajaat ko te préparé bis boobule am na ku ni sax daa gis ay tenue tenue yi ci yoon wi sëñ Tuubaa njëkk dagg mbubb tudde ko turki turki dara turki njaareem Cheikh Abdou Lahad li mu ta sol mu tudd lahat bàyyi lahat ndax dañuy su ma solee grand mbubb dañuy defee ni man damay noppal te man damay liggéey sama tenue de travail am na ci ay sëñ Suhaybu murid daal da ngaa war a sol mbubb moom bu ñu bu ñu dee rey murit bu ñu la gisee rek nga dee loolu daal la ñu war a dem dem Touba bernde yi ci ruu yi mat mu jàng xasida jàng alxuraan euh, euh, salatu ala nabi bernde yi ci bakkan yi mat ganaar ba gëléem ndax gis nga ganaar ba gëléem sax 18 la ñaari tànki ganaar ñeenti tànki bëy ñeenti tànki xar 10 ñeenti tànk nag ñeenti tànk gëléem 18 18 mooy secret bi kon 18 safara ngoog safar nag bind na weer yi tëbaski waajal tam xarit waajal gàmmu waajal gaa yëpp na ngeen waaj safar ñëw na di weeru Cheikh Ahmadou Bamba góor gi nga xamante ni moom rek diggante Dakar ak Conakry moo sànni woon der bi ne nafaali xayrillahu fi Conakry min ku di jaali bi ilal Manakiri océan Atlantique nekk 8000 mètres de profondeur mu sànni deram bi julli waa kookee nag tey jii moom moom jumaa ji moom moom jumaa yee boo demee Touba da nga fa fekk 100 48 mosquées te dañoo door de dana ko upp ngir lan ngir waajal li nga xamanteni moy safarul khair kon bokki taalibe yi je rends un vibrant hommage ci ñepp ñu mëna gor gorlu waajal ko te xamni nak nag loolu mooy sunu njëriñ eh, tey ak ëlëk bala nga tej mom ci ak euh, laata muy fardu sëriñ bi mo ñëk defal bopam safar. waaw da ko def da ko defewon ak nan la santaane ñu koy. da ko def dafa wolu sëriñ Moulay Bousso ni ko nañ ma wutal euh ab gàtt sëriñ Moulay Bousso dem indi aw bay mu ne ko nañ ma ko wëlbatil defal ma ko am xaaf sëriñ lay Bousso dem def ko am xaaf sëriñ Touba woolu sëriñ Balla Faali jël sëriñ Balla Faali moo rendi xar ma man mii wax ak yéen daraje ku ne day wut daraje te dama damaa wutul daraje sama bàyyee fees xar ma wallahi al azim bi ñu ko feesee ba noppi nag sëñ bi def ko ñetti cër bi jànkati alxuraan yi bi jànkati xasida yi sëriñ bi bii mu ni Balla Fall yóbbu ko ci biir njaboot gi daal damaa bëgg nag ngeen ñëw santale ma yàlla ganaar bëgg leem ndax bis bi li ma am lépp ci laa ko am mm. kon nag moom mi joxoon boppam rasulullahi ni ko nafsi wa diini suma ahli wal walat wa maskani lakk wa diyetul abat sama diine sama jëmm samay dongo samay doom lépp jox naa ko Muhammad dammi xam nga yoon yàlla Ibrahima deret ci doomam la góor a joxe sëñ Bamba daa joxe deretam deret ci دمي واهلي واولادي في دوله ابدا خديما له مسخاد لي سندا كوكي نك ميلون نون سي يونتي بي با جارال كو موي غين ني بالله الذي لا اله الا هو اياتي ومماتي واركاتي وسكناتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موم مومي غين نك ني اك ديم deem دالم رسول الله لا نون murit يي إيه. maa ngi wax ci seen kàddu ni ñun tim billahi lazi la ilaha illa huwa hayati wa mamati wa arakati wa sakanati ma cheikhul xadim sunu dund ak sunu dee sunu yëngoog sunu dal jox nañ ko Serigne Touba ku bëgg jàmm ànd la ñun ci Serigne bi def ni tubaab bi defoon nee na les mourides n'ont pas de problème le matin ils chantent leur ils boivent leur café. Le soir, ils chantent leur khasaïd, ils boivent leur café. Tu aimes le marabout, ils t'aiment. Le marabout t'aime, ils t'aiment. Ils n'ont pas de problème. Quand nous a le gouvernement français, nous dit que les gens sont que les gens le Serigne. Ils am le Serigne. Nous, le Serigne, c'est magali, bu magal ci na magali. Magal ci moy dàq oto dugg fu la neex dal déedéet ñun ñëpp nañ góorgóorlu dem nag Touba wan sëñ mu di ko gis nga màggal gii rayoon naa daaw xar tey ñaar rayoon naa nag tey ñaar gëléem na Sénégal gépp xam ni tey dañ ñi même ñi yóbbu oto yi sax su ma sañoon ñoom dañ koy def euh, dañ koy def addiya Sëñ Tuubaa bis boobu gratuit xam nga lu tax gis nga transporteur bokkut ak mooy ki nga xamante ni day laaj dërëm juróom benn ñaar dërëm fukk ak juróom fanweer transporteur bu mag bi mooy ki nga xamante sam xel léegi da nga koy yóbbu États-Unis mu doxal a fa la fa ne lépp dikkaat te du tàggoog yow kooku mooy ki nga xamante ni moo ànd ak Sëriñ Tuubaa ma bëgg nag ñun ñëpp ñu gën cee góorgóorlu bu kenn yokk paas yi bu kenn wàññi lan lan maye lépp naa bëgg it nag bu ëllëgee hmm. ñu yi nii euh, dof yi nii lu waay bëgg demal Touba ñu may la ko